yee sëñ moom dëgg yàlla yee dugguma sax ci débat waa Pire pardon xam ngeen ñii de wa kii kan am na fu bokkee moom moom. <laughs> waaye yow ñoo bokk famille lex kay kii kay ñoo bokk famille lex nag. tu arkel kenn du ne suuro yow de xam nga ne ndab li sa waroo cee lekk yow mi <laughs> munu waxantee dëgg ndab li waroo cee lekk nag ah, ah. léeg-léeg bu ma lay del déglu seppi sa loxo ci ndab li Amadou Ba yi si Ojaar nee na oh c'est Amadou Amadou moo allergique au plat proposé yow mi da nga ko war a allergie nañ waxante dëgg moo tax Amadou Ba allergie bee tax mu jàpp biir bi nii kee mu saatin la mu ne comme Khalifa Sall nag buggul ma lekk ci ndab li dem naa sama yoon te man tamit comme li ma leen di conseillé dégluwu leen ko sama Ibrahima Fall tànn na Pape Ousmane muy xaritam dellu naa ci Cheikh Ousmane Touré dem naa sama yoon waaye yow ay xarit am nga benn Abdou Khadir Diallo depuis Maroc ak ki nga xam mooy DJ Malick ñu ngi lay gërëm bu baax ci revue des euh, euh, titres bi revue des titres bi euh, Mami Samb ñu leen di gërëm bu baax yéen ñu ko doon bàyyi xel on revient juste après ceci comme laay laay il faut après ba defar la bagage quoi mais ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp Mamy Samb incha allah xam naa nañu retrouver léegi euh, pàcc euh, bi ñuy soobu léegi moom mooy actu euh, commanté bi annoncé nañu couleur yi ak revue des titres na ci Bougane Gueye mi nga xamante ne war na wuyu ji tey ci information yi mu ji Salma Ibrahima Fall indil ñu ko mooy ne waxoon na ni huit heures trente na ko fekk waaye ba jamono ji apparemment départagul Euh, cité euh, kër euh, góor gi suñuy ndaw ñuy fa du ñàkk xëy na ci kanam ñu xool lan la ñuy am ci pàcc bu nu mel mais Cheikh Ousmane ak yow laay tàmbale revue mm-hmm. li nga xam te mooy actu commenté bi mm-hmm. déjà lan nga comprendre ci woolu bi ñu woolu Bougane Gueye Dany laataa ñoo ñëw ci moom perception bi mu ci am mm-hmm. ak it li mu jàpp ni dëgg moom moo moo moo moo lalu ci ginnaaw woote bi waaw d'abord maa ngi lay nuyu. di la ziar waaw bokkal plateau bi Salma di ko ziar bu baax. Mm. di nuyu sàmm ak internetu sans limite yëpp mm. ñuy suivre Café Actu. waaw Bougane Gueye Dany dama jàpp ne convocation am l'ordre normal des choses est que bu demee wuy ji mm. dinañ a am plus plus d'éléments ci motifu convocation bi xam nga réew buñ ci nekkee dafa am ay loi am ay règles nit ki du lu la neex wax. boo nekkee représentant physique bu benn bërëb képp koo xam ne taxaw na foofu wax fa dara am na nu enquête bi di demee dañ lay woo n'est-ce pas motifu convocation bi bëri na moom waxagul boo xoolee waxam bi waxul motifu convocation hmm. donc ñu ngi toog xaar déglu motif convocation bi lan la à partir de ce moment añ ci mën a wax. oui moom ñu jàpp mooy ni. loxoy hmm. Ousmane Sonko génnu ca. Hmm. Euh, wax na déjà nii la ñu bëgg ci moom mooy liquider ko. te loolu su dee ni ci la nar a na xam ne du yombee noonu. pourquoi nga jàpp ni moom mu xalaat ni lii jot a am nii yëpp loxoy Ousmane ko génn ci. waa parce que déjà Ousmane Sonko du intérêt bëgg liquider Bougane Bougane poids plume la politiquement. pesé wul dara ci champ politique bi. boo ko bëggee liquider da ngay créer benn victime. mi ngi noonu mi ngi victimisé wu démb Bougane déclaration bi mot pour mot daf lay delloo ci benn déclaration Ousmane Sonko. daa répété ay waxam. mot pour mot dafa répété ay waxam à l'exception près tey mi ngi noonu day génn buy génn ni Sonko defoon lay defee waaye nag la problème mooy contexte yi bokk donc du safe maanaam Bougane fi mu wootee gatsa gatsa dafa laajagul bakken hmm. waaw moom dafa woote joxe bakken foo xam ne laajuñ fa bakken ah oui ah, ah, réew mi baax jaral na ma ma rey la wala ma rey la man bi ko déggee dama ne réew mi baax wala mu bon loolu jaral na ci jël bakkan xamagoo la nga ne da jël bakkan c'est-à-dire Bougane Gueye Dany mënul politique nag malheureusement xamul tax man la mënul politique démb Bougane amoon na occasion inédite pa Ousmane mooy démb bu mënul politique am communication bu dëgg démb la Bougane doon taxaw taxawaay bu dëgër ci champ politique bi ba faw hmm. lu tax nga wax loolu yow opposant la ñu servir la benn convocation ci ay veille élection boo mu ne comme dëgg hmm. boo communiquer ba pare l'opinion am quelques doutes pour yow fi mu génn noonu attaqué Ousmane Sonko du woon yoon wi non ni mu communiquer moo baaxul dafa reprendre texte Ousmane Sonko au final dafa ridicule mënoon na communiquer normal noo xam ne dina victimiser boppam dina jaxase xelu nit ñi ci war nañ ko convoqué wu pas ci période bi te Bougane mënul politique démb fenêtre de tir inédit la am raté ko. oui mais boros na ko wax na ni sax. yemul ci non ni mu ko defee moo baaxul. saa à dire boo demee recopier benn texte Ousmane Sonko dugal ci yoo xam ni c'est un peu ridicule booy réunion mi ngi sama téléphone nàngam nangam maam waxi dof boobu waxi dof la ko defee doxul. mënul politique Bougane mënul politique démb doon démb bu koomee ba pare day taxaw posture chef de l'opposition boobu mu doon ut démb daf ko doon am mais dafa nelaw xaw ma kan mooy commu kan moo yore communication mais ciw na. ci wéet waa ànd sàmm kàddu yi dinañ ànd ak moom ci xeex wi. Mhm. feeñalaat ni Ousmane Sonko bàyyiwul sax Barthélémy Diaz. Bougane war na mu ay manœuvre pour xañ ko ci li. war naa tiit ci boppam de. ndax ànd sama kàddu yi ñoo àndoon ak Sonko bi biñ koy gàtt sa daf leen a gis. <laughs> ànd sama kàddu yi. Bougane war naa tiit ci boppam de ñoo ñëw gunge woon Sonko bi ba gisu leen de <laughs> kon de boo doon Bougane tiit ñooñu kuñ ne dinañ gunge <laughs> boo wéetee war ngaa jooy. ne ni ne. dëgg la de. Ah, wéet na ñooñu. ah dëgg laa la wax de ñëw ñu. waaw yërëm naa bugaat. bu dee ñooñu rek la yaakaar. doo bugaat wéet na. diñ ko fekk. na ko laaj Sonko. tey moo dem wuy ji te génn ci lim ne. Thierno Bocoum de mu ngi ci buntu kër ga moom. na leen laaj Sonko rek. ndax gis na leen bi Macky Sall di toj otoom bi di ko génn. wallaay bugaan na dem wuy ji te génn ci lim ne. man daal eh, xam naa ne image gën a frappante ci image Ousmane Sonko yi. dëggantaan. black à part quoi booy jàng da ngay xam bugaan ngay dane amul ndimbal. dem bugaan bu en or la am pas Ousmane quatre-vingt-dixième minute la te camp yi kenn newu fa góol newu fa dóor mu dugg la buggaan aj bal bi ci kaw oh, te booba fekkoon na ma jambal préparer ko terrain bi de préparer ko terrain bi ah. centré ah ko baax kenn ah. newu fa boo annoncé eh, kii buggaan kaj bal mu génn stade bi surtout bi mu annoncé ne 17h dina wax xaw ma 17h30 bi ñu ko doon bàyyi xel non yow quand même xam nga opposant bu ñu la convoqué rek dafay changer peu importe nga def ak defoo loolu da ngay delloo stratégie de com bu baax waaye nga dem répété benn discours Sonko moo pour mu ñëw taxaw tari non mais Bougane non man Bougane dama non dëggantaan man damay laajte Bougane kan moo koy xelal mais du mbokkam même perception ngi ci am Salma déjà yaa ngi ma jox sax ay nouvelles nga ne ku mel ni Cheikhna Bocoum ma nga sur Thierno Bocoum mi ngi sur place euh, Anta Babacar moom euh, elle était au téléphone ak journaliste yi donc euh, ça veut dire que elle pas elle ne s'est pas déplacée en tout cas ci information yi nga xamante ni moom laa jot mhm. donc li Cheikh Ousmane wax maa koy ziar Cheikh Ousmane ah, <laughs> bu baax ah, c'est la première fois ñuy ah, gisee mais c'est la première fois mais dañuy dañuy déggante téléphone donc euh, nit la koo xam ne dañ koy suivre bu baax a baax tamit donc ça